ñu fa yéene dellu si si jotaay yi ñu amoon ci koor gi ngir leeral buntu bi aju ci koor ci téereb al imaam as-Saadi rahimahullahu taala bii di manhaj as-saalikiin mu mel ni ne démb ñoo ngi taxawoon ci fa muy waxee wa yajibu tabiitu niyati li siyaami alfardi wa amma an-naflu fa yajuuzu bi niyatin min an-nahaar loolee moo di bindu tey bi bu neexee yàlla subhaanahu wa taala gannaaw ba nga xamee ne xam nañ koor kan la war ak chart yi war a daje ci jaam bi e, ngir koor war ko ak koor kañ lay dugg weeru koor kañ lay dugg bu ko defee bu fekkee léegi weer wi dugg na jullit bi kañ lay yéene ak kañ lay yéene di wér ak kañ lay ñàkk wér moo xam ci kooru farata la wala kooru la loole moo di bindu tey bi mu wax ni wa yajibu tabiitu niyati li siyaamil fard li nga xam ne mooy kooruk farata kooruk farata dafay war ci kiy woor mu jiital yéene sa guddi ga jiitu anam bis ba muy woor bu ñu waxee guddi gi nag mooy liy dem ba si lu jiitu fajar gi di xar ba fi fajar gi di xare maanaam li am solo mooy lu jiitu fajar gi di xar na ànd ak yéene yéene nag lu ñuy fas la maanaam si xolam du lu muy wax ci làmmiñam waaye moom si jëmmi boppam fas na si xolam ne ah suba de damay woor loolee si xolam du lu muy wax ci làmmiñam ba tax na bu fekkee fas na loolu ci xol bi ci guddi ga ba sax lu jiitu fajar gi di xar bu boobaa ci koorug farata boobaa lay wér koorug farata nag buñ ko waxee dafay ëmb weeru koor walla sax li ñuy tuddee fay maanaam boo amoon bor ci weeru koor wi nga dem ba di ko fay koor googee farata la ci yow boobaa lii ñuy wax ci Eh, yéene bi daf si say bokk kadhalika kooruk nidir te nidir mooy ki nga xam ne dafa wax ni bu ma yàlla subhanahu wa taala defalee nangam ak nangam man de dinaa ko wooral bisu sàngam wala bisu sàngam wala nangami bis jaam boobee yàlla subhanahu wa taala defal ko loola mu doon mébét kookee war na si moom mu joxe la mu dige woon muy nidir boobe kon woor googu muy woor farata la moom loolu la ñu tuddee woorug nidir kadalika koor yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala daf koo gàll ci mbir yi nga xam ne dañoo ne ku ko def ngir nga jotu fawu dangay def nangam ak nangam ak nangam mu bokk se yooyu ngay def koor mel ni par exemple buñ ci doon joxe misaal ci weer wi ñu toll dina ñëw ci kanam incha allahu ta'ala eh, ci dog koor ak yi yàq koor nit ki bu fekkee dafa joteeg soxnaam ci weeru koor ñu ne ko ah loolu ngay def loolu nga def day kafaara bi maanaam jotu bi mooy nga goreel jaam mooy nga goreel jaam bu fekkee mënta goreel jaam ñu ne ko faw da ngay woor ñaari weer yu tegaloo yoo xam ne doo dog diggante bi maanaam ñaari weer ngay woor di ko tegale boo ko mënul nga doog a leel li nga xam ne mooy euh, euh, juróom benn fukki miskin soixante miskin kon koor googu ñu tudd foofu kooruk farata lay nekk kooruk farata la kadalika kafaara li nga xam ne mooy waat nit ki nga xam ne dafa waat ne dinaa def nangam ak nangam te loolu mu waat defu ko loole la ñuy tuddee eh, alxind bu boobaa la mu waat defu ko yàlla subhanahu wa daf koo digal ci alxuraan ne na def nangam ak nangam ak nangam léegi mu bokk ci biir lam ko digal koor koor tànneef léegi koor googu bu fekkee dafa tànn ne dafay woor koor koor googu farata moom dafay woor kon koor yooyu yëpp ay farata la liñ ci jublu mooy bépp kooru farata nit ki bu koy woor faw yéene ba daf koy jiitu maanaam yéene ba dafay jiitu bis boobee muy woor guddi ga ba fa fajar gi di xaree faw mu ànd ak yéene bu fekkee dafa toog ba si digg bëccëg bi ah man teema woor waay loolee kenn du ko nangu si moom si kooruk farata lu eh, après fajar gi di xar ba si bëccëg bi nga jékki-jékki ne da ngay woor jublu si kooruk farata par exemple ki amoon bor war koo fay comme eh, jamono yële kenn ku doon laaj naan moom day dafa amoon aada di woor ay bis maanaam woorug la waaye dafa jekki-jekki xelam dem si ne moom amoon na bor si koor gi léegi bis yooyu mu doon woor di ko naafila ndax mën naa remplacer bor ba la mu amoon si koor ga kooku dañ naan ko déedéet koorug naafi la eh, la ko yéene woon léegi koorug farata moom charte la danga war a yiital li nga xam ne mooy yéene bi comme niñ ko waxee fii yéene ba faw mu jiit ko nga fanaanoo ak yéene bi yéene ko si guddi ga wala sax lu jiitu fajar ga di xar nga ànd ak yéene ba la nga yéene woon moom mi war ko naafila loolu moom naafila la kon bor boobu mi ngi la topp ba léegi faw nga yéene ko ngir fay ko loolee la ko waral yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ni ko nettalee si xadiit man lam yujmiu siyaama min al leyli fala siyama la képp ki nga xam ne nii yéenewul woor si guddi ga ko day amul ko kookoy amul koor xadis eh, solo nañ ko jële ko si xadisu xafsa ak xadis ibn umar doonte ne xadisu xafsa ku si mel ni al imam al buxaari rahimahullahu taala ak abu xaatim ak abu daawud ak at tirmidi ak annasaa'i ñoom ñëpp rahimahumullah dañoo jàpp ne mawquuf la la wér mooy ne eh, waxi xafsa la waaye xadis ibn umar moom Euh, boroom xam-xam yi euh, wéral nañ ko ne ki nga xam ne yéenewul sa guddi ga kookee amul koor ki nga xam ne yéenewul sa guddi ga ci koor farata bu ñu waxee sa guddi ga comme niñ ko waxee woon léegi mooy euh, luy continuer ba lu jiitu fajar gi di xar li si essentiel mooy lu jiitu fajar gi di xar nga ànd ak yéene ne dangay woor kooruk farata am koorug naafi la comme ni ko borom téere bi waxee nit ki am na droit toog ba ci bëccëg bi am yéene woor woorug naafi la loolu jullit bi am na ci droit waaye si charte na fekk lekkagoo dara mbaa nga naan nit ki nga xam ne dafa xëy bi mu xëyee lekkul dara naanu dara mu toog ba ci bëccëg bi ne ah man teema woor teema woor jaamoo ko yàlla subhanahu wa taala woorug naafi la bu ko neexee comme ni ko suñu yaay Aïcha radiyallahu taala anha nettalee jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ko al imam muslim rahimahullahu taala solo suñu yaay Aïcha nee na daxala alayya annabiyu sallallahu alayhi wa sallam daata yawmin فقال ينتبي صلى الله عليه وسلم مسنا نيوسي من دال دي لاجته hal indakum gada ndax lu nit jëfandikoo am na fi tey maanaam lu nit lekk te gada buñ ko waxee ci làmmiñu arab mooy lu ñuy lekk ci yoor yoor jëm kaw maanaam li commencé yoor yoor kon yoor yoor la yenente bi sallallahu alayhi waxoon loolu si beneen riwaaya bi hal indakum shay ndax lu nit mën a jëfandikoo am na fi ñu ne ko euh, suñu Aïcha nee na ñu ne ko déedéet fii de dara amu fi mu ne fa inni idan saim fa inni idan saim kon day man dama woor kon day woor naa kon ñu déggee ci lool lu jiitu loolu yonente bi sallallahu alayhi amul woon yéene woor ndax bu fa amoon bu fa dara amoon ci kër gi dana ko jëfandikoo waaye comme dara amul ci kër gi mu fas yéene woor ci digg bëccëg bi loolu nag koorug naafila la koorug naafila la kon si la ñuy gisee ne bu fekkee koorug naafila moom nit ki am na droit yéene ko si digg bëccëg bi comme niñ ko waxee léegi waaye si charte fekk lekkagul dara naanagul dara amma koorug farata moom faw yéene bi eh, jiitu ko léegi nag mu am masala mu am solo si bunt bi mooy ndax léegi weeru koor nit ki daf koy yéene benn yéene daldi woo yéene weer wi yëpp bu fekkee weer wi teru na walla bis bu nekk ak yéeneem loole am na boroom xam-xam yu ci wax eh, ba ne nit ki bu fekkee yéene na benn yéene ci weer wi yëpp maanaam weeru ko dugg na mu fas yéene koo war daal loolu eh, des ko koy nangul lu dul ñu ne lu dul mu am dog-dog ci biir weer wi comme ngànt yi nga xam ne dina ñëw incha allah si kanam ngànt yi nga xam ne nit ki bu ko amee mën naa dog bu boobaa moom nee nañ bu demee bay wooraat dafay beesalaat yéeneem fas yéene continuer woy si koor gi ba koor gi di jeex ñeneen ñi ne déedéet bis bu nekk ak yéeneem faw wu nit ki bis bu nekk mu euh, yéene woor bis bi nga xam ne moom mooy ñëw maanaam sa guddi ga ak lu jiitu fajar gi di xar ndax loole la ñuy tuddee ibaada mustaqilla na jaamu yàlla spécial la weeru koor bi bis bu nekk jaamu yàlla la spécial boo xam ne danga ko war a yéene te loolee mooy li gën a wér si waxi borom xam-xam yi comme ni ko cheikh al allaama abdul ibn baz rahimahullahu taala tarjixee kadalika al allaamatu saleh al fawzan xafidahu llahu taala nee nañ bis bu nekk yow mi woor danga war a yéene maanaam lu jiitu bis boobee sa guddi ga nga fanaanoog sa yéene lu jiitu fajar gi di xar nga yéene li nga xam ne moom mooy woor te loole moom moo gën a dëgër si waxi borom xam-xam yi si masala mi kon daal si gàttal loolu moom moo aju si bindu tay bi si li nga xam ne moom mooy yéene si koor moo xam farata la wala naafila la allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain